assalamu alaykum bokko internet yu senu tv ngi leni dalal jamm donc gis ngeen li nga xam moy campagne bi exina mo waral ñi amal ay plateau spécial di togal ñen ñi nga xam ni dañuy bokku ci representant wu candidat yi am ñom ay waxtaan tay nak ñu tok fek nga xam ni modi bay alou chakhar bay ñu ngi lay xiar ba cheikh ñu ngi lay delo jax di la di la remercier ci invitation bi di nuyu équipe technique waa Saint-Louis TV yëpp te di la remercier vraiment tamit encore une fois ci bi. ok donc mu mel ni tey dañ fi ñëwoon pour euh, seq waxtaan. Euh, ci wàllum euh, campagne bi mais tey balaa ñu dugg ci campagne bi bu ne Choker ñi xame ko ci diwaanu Ndar ci APR. est-ce que mënoon xam aussi tamit lan nga ci APR. man moom man moom ñëpp xamee nañ ma que damay politicien politicien. Mhm. bokk si APR depuis 2012 ba léegi man maa ngi si biir parti bi mhm. mais comme que am si rek cër.

am na solo donc voilà voilà donc ñu gis ni instant bi laata ñu dugg ci campagne bi. Mm. Euh, ñu ngi ci ñu ngi ci campagne moom door na tàng na déjà. lu tàng na euh, kooku kay waxatu ñu gis ni aussi euh, balaa ñu ci dugg. Mm. bu ñu xoolee bilan wu président Macky Sall. ci mm. sept ans yi. donc na nga gisee bilan bi.

chose d'avoir nga wax carrément lu mu fi def mhm. mais Macky Sall tay so xolé bilan wam mhm. mais c'est un bilan positif ah amul kenn quoi c'est un bilan positif amul mhm. kenn ko xam ne mën na ko naatable amul tey soo jëlee tey si wàllu infrastructure dama lay jël ay pont yoo xam moom laa lay tënk parce que mënuma toog di cité bilan parce que cité bilan boo xam large bilan la. Mhm. moo tax tey soo jëlee tey si wàllu euh, kii infrastructure. Mhm. mais jël train euh, euh, train train kii bi express régional. terre bi quoi waa terre bi boo xam ni moom la mujjee moom la mujjee énugé. Mhm. mais kooku c' est la première fois mu am au niveau Afrique de l' est ce que mos nga gis amul amul. président président boo est-ce non non non mais mais actuellement mais ah, mais non mais Maroc non mais mais mais mais ma mais Maroc ci quelques kilomètres am un 43 kilomètres est-ce que yi euh, pour mu def ko. évidemment mais xam nga yo ma ci question le bilan du président Macky Sall. ma terminé. non non non non non citer le bilan bi. Mhm. dama secteur infrastructure ma citer le ben nga nga dog ma. Mhm. je si aéroport. Mhm. mais depuis 5 ba à à nos jours. Hein? président a fait def avions il a créé hein? avions Air Sénégal SA kan la xool AIBD boo xam moom la temps yi a fait ma. non. AIBD pareegul mais AIBD AIBD pare na ba ba ba gars yi ni pareegul. non tamit non pareegul non liggéey boo xam ne moom la ñu parax paraxee. parce que je pense que Macky Sall lépp lu mu def daf ko def ci dans la diplomatie. ak la transparence ñëpp xam nañu liggéeyam nu mu mel. kon donc tey soo nee daf ko gaawantu loolu te ñëpp gis nañ ko kon damay jàpp ne ay waxu caaxaan la. ah pareegul non non non non tamit tey soo jëlee si pont Sénégal bi mhm. nga jël si pont Foundiougne bi pont mhm. Sénégal bi boo xam ne diggante Sénégal ak bi mais ñaata ñaata ñaata mètres la pon bi y a yoo xam ni yoo xam ne euh, Macky Sall kii nag ak euh, ak le président Gambie mais taxaw mais laisse-moi terminer laisse-moi terminer au moins tey soo mais taxaw waaw mais xaaral laisse-moi terminer au moins nga kiiw noonu tey ko tegee ñun gisuñ suñu bop parce que li nga xamni amna ben na bague fa nekkoon bo xamni pour Sénégal difa difa dans sen doole nga ñëw indi point bi nga xamni en revanche Gambie moy c'est gagné pas Sénégal non non non légui légui léegi au moins tu m'as posé une question il faut me laisser juste la me ah, teg mais dama la bàyyi ngay dem non non non il faut me ah, laisser me développer au moins le programme bo xam ne euh. moom la moom la Macky Sall am au niveau mom la def ci 2012 bu mu yégué ci nguur gi ba 2012 actuellement mhm. tay so tay suma waxé lool tay nga jël autour Ila Touba mais lool euh, so don def Touba ak Dakar yaa ko don def commune de commune yaa ko don def

ticket bi bi nga xam ne mooy Ila Touba bi autoroute du Sénégal moo ci nekk ndax xam na ne yoonu yoonu dëgg diggante diggante euh, dakaar tuubaa lu fay jaar ci oto bëri na bëri boo xam ni pour ñoom ñu mën a gañ seen xaalis ñu def ko fa donc seen propre intérêt la. waaw mais xam nga xam nga xam nga waaw mais loolu loolu loolu loolu xam nga xam nga xam nga xam nga Cheikh. bu leen nax gars yi soo soo noo kenn naxul Macky Sall du nax. du naxé yaakaar ñepp xamni ligéyam c'est un bilan c'est un liggéeyam xam ñepp xamni ligéyam lu muy def au niveau de Sénégal ñepp tek nañ seen bëtt mais yaakaar tay ñoy di wax ay dëgg mais ay waxu chaxan la mais Cheikh xam nga opposition bi xam nga xam nga réew démocratie xam nga réew démocratie du neex way wax lu neex way def parce que dañu jëm ci élection lu képp ko xamni mën nga xol no no dané ce no dané ce kii nekk au pouvoir sa adversaire da ka def mais tay nga jël ci walu énergie pare guma bàyyi ma les moo terminé au moins tey nga jël tay ci walu énergie tay nga jël ci wàllum énergie. <laughs> Eh. mais avant Macky Sall di yéeg. Eh. mais ñaata ñaata eh, ñaata mégawatt la fi la fi fekkoon y avait que 500. actuellement ñaat la indi en 2018 il y a 1140 il y a 1140 mégawatt man je ne je ne inventé wu ma. Hmm. dama lay parle en connaissance de cause ce sont des chiffres réellement mom la lay indi hmm. légui tay so jëlee tay ci walum coupure bi. Hmm. mais ay temps Abdoulaye Wade temps Abdou Diouf coupure bi ñaat la il y avait que 950 heures mais actuellement ñaata la ñu en 2018 en coupure bi day di ko réduire en 24 heures par année.

léegi nga jël tey ci wàllum dugali moy ci mm-hmm. wàllum ndox bi mm-hmm. ki xamni ki moko jité ko jiite maire di euh, Mansour fay di mm-hmm. nek def liggéey bu am solo au niveau de Saint-Louis mais il y a combien de forages yo xam def na 683 forages en milieu rural il y a 80% 98% de couverture en milieu rural. Mm Ce sont des chiffres que j'ai pas inventés, mais ce sont des chiffres yo xam mom la gaay am. Donc waaw donc kon tay so jëlé KMS 3 bi avec 200 200 000 mètres cubes par qui mais est yëpp tamit cher. mais tamit opposition bi su nee Macky Sall liggéeyul. man dama jàpp ne ay waxu caaxaan la. ku nekk nii moom lim nga lim nga. mais fayaguma parce que parce que la soo euh, bàyyi woo ma ma temps parce que tey même soo ma tey même au moins moo nga ma bàyyi ma lool tout ci emploi bi. non non après daan suñ daan si ñëwaat daan si ñëwaat parce que tey comme li nga li nga jot a lim yëpp nii. waaw bon c'est beau ah c'est beau. non dama la ko limal. xam nga xam nga tey parce que mënu ma toog limal la yëpp mais dama dama la tënkal dama marié brief deux axes. ok donc dafa am li nga xam ni jàpp nañu tamit moo gënoon priorité

Nous euh, avons construction de 6369 salles de classe. Nous avons coûté 40 milliards, nous avons coûté de 126 milliards. Nous avons donc développement de euh, l'industrie locale, nous avons 5 milliards pour une unité. Nous avons une 750 milliards, nous avons coûté l'écran. Mais, le grand priorité, le moins cher, nous avons coûté des milliards de dollars. Nous avons coûté des milliards de Nous avons coûté des milliards de Nous avons préparé la campagne. non mais mais mais milliards mi ay 700 milliards 39 milliards au lieu de 7 milliards mais soo ko tamit ak réew bi fi mu toll ah am na village yoo xam ne jusqu'à présent ba léegi bu ñuy wasin charette lañ leen di dugal leen. mais loolu mais Cheikh loolu soo ma waxee mën la loolu loolu c'est pas vrai. mi ngi am parce que non non non kooku c' pas vrai. <laughs> mais je pense que ben benn. bul tax sama sama gars doon xarañ. bul tax sama gars yi élément dugal non mais taxol non non non non xam nga xam nga xam nga so nee tay <laughs> euh. ci walum santé bi Macky Sall def ci dara ma dama jàpp. non néew def ci dara dama non non non non non dama y' a des villages yi nga xam non non attends y' a des y' a des villages yi nga xam ni jusqu'à présent ñoom bu ñuy accouché dañ leen yëpp ci charette néew ma Macky Sall def ci santé je ne l'ai jamais dit et du ma ko wax. parce que nit sax bu la dëkkee kër une semaine duñ fa def dara donc waxe ma lo mais dama nit carrément amna ci na si yenn secteurs yoo xam boo fa demee jusqu'à présent ñu ngi dund ci ay difficultés. mais terre bi du priorité. terre bi du facile du créer mais 43 km da nga xam ñaata lay créer ci ay emploi hein ok donc wa légui on avance hein? voilà mais tamit mais tamit da ngay da ngay wax des choses yo xam ni il faut il faut il faut tamit nga maîtriser que parce que soo mënee def ah, li ma limal li limal non non non mais ay choses lépp loo xam ni Macky Sall. non dama laaj li ma li si secteur boo jël. secteur boo jël au niveau mhm. di sant bi di environ di emploi bi mhm. je pense que def na lépp le maximum possible def nag mais tey tey li tax ñuy wax bilan dafa positif mais loolu moo tax yéen a ko fi wax donc ñu ah, ñu ñëw ñu ñëw si campagne bi gis nañu campagne bi jot na gars yi junnu ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi doxal macha allah ñu ñëw ndar gis nañu fan yi def na fi benn passage bu am solo alors nan nga gisee tamit campagne président bi Wow, depuis depuis vous me lancé euh, campagne depuis vous me lancé qui euh, son directoire au niveau de Dakar campagne mhm. euh, je pense que lu mu mhm. parce que tey dafa devenu amul responsable avec les militants du parti Alliance pour la République. Mhm. ñëpp nañu dugg pexe dugg sur le terrain def des visites de proximité waxtaan ak citoyens pour. Euh, véhiculer leen au moins le bilan du président Macky Sall xalaat waxtaan ak ñom xamal leen le moy bilan du président Macky Sall ses réalisations lo xam def na ko bu gars xam que lolu mo gën yaakaar naa moo gën tok di def ay meeting wala daga lolu lancé nak nous ñun au niveau de Saint-Louis je pense que depuis que bu mu ko lancé Mansour ñëw monté comité électoral mhm. au niveau de Saint-Louis je pense qu'il y' a y' a des sous comités qui ont installé dans si base mais des sous comités nous avons actuellement des visites de proximité. kon nag des visites de proximité yi nga xam continuer jusqu'à le 24 jox Macky Sall dès le premier tour avec 56 ndam li nga xam ne ngeen ko calculé ba pare dégg naa. non non non mais mais si so ngeen ko calculé ba pare parce que Youssou Ndour ñëw na nga xam ne gars yi dañ wax la nii mais daf ñu junj parce que bu ne dana ñëw fii pour jubiler <laughs> mais mais mais mais Macky Sall ngeen dem ak élection dañu li ñu gagné ba pare entre pour cent donc yéen instant bi da ngeen na ngeen na ngeen pare seen élection nii bàyyi gars yi dem di rey seen bopp mi ngeen pare ngeen ba pare non c'est mais tamit xam nga Cheikh Cheikh moom nguuru jaay doole non non non du question ak nitam yi au moins xam nga ni nekkuñu ay ay waxkat ñoom dañuy Macky Sall ay yàqkat lan quoi non non dafay jëf nit ñi di gis nekku fi di wax gis nga gis nga li gars yi di wax euh, il faut xaw ma lan le chien passe la caravane passe. Mm-hmm. bon xaw ma nu ñu koy waxee je pense noonu. mais loolu waaw le chat aboie la caravane passe. Mm-hmm. mais kooku Macky Sall moom day liggéey gars yi di wax. Macky Sall lu mu fi liggéey ban président bu mu yéegee ba léegi 2012 2012. Mm. mais dama ni la ban président depuis Senghor ba Abdou Diouf. Mm. de ba Ablaye Wade. Mm. mais lu mu fi def kan moo ko fi def. Eh, bu lox loolu waaye. non non mais dama lay laaj. mais yow en tant que jeune. xam nga tey ñoom Sonko non <laughs> que fekkee ni jox nga ma kii da nga may bàyyi ma wax. sama gars yi mais ñoom ñoom Sonko di wax. Mm-hmm. mais ban bilan lañ am ci campagne bi toog di wax mais ma ma dikkee. Eh, ñu ban preuve

assemblée xam nga xam nga ah, Sonko xam nga xam nga dindi bi parce dindi bi dindi dindi ko fi définitivement mais tey dañu xool suñu assemblée nationale bi nga xam ne lu neex président ma fay am wàcce loxo loo xam ne bëgg ko du fa am loolu assemblée xam nga xam nga non xam nga am na benn am na benn député boo xam ma nekk ma assemblée mhm. mais am na benn député boo xam ne xam nga moom si boppam mhm. lu mu war a njëkk wax ma fekkee day wane mhm. euh, day wane dëgër laay wala day wane loo xam ne citoyen la je pense que du dem ba nekk assemblée nekk député gën yow yow dootoo doo doo occuper sa poste de fonction amul be am na benn député bu ko wax je pense le nom dama ko fàtte mais koo xam dafa taxu ni carrément man Sonko duma ko gis assemblée mais kooku di a jiite réew mi mais taxal man su ma man su ma déggee non mais non mais du lu ma xalaat xam nekk ma assemblée mais gars yee ko wax ñëpp gis mais ah xam nga Sonko man jeunes yi koy jeunes yi <laughs> man dama est-ce que ce sont des jeunes conscients man loolu moo ma jaaxal. ñu topp Macky na dañ conscient ñoom. ils sont conscients <laughs> parce que parce que xam nga laajal parce que soo xoolee Macky. Uh-huh. tey si wàllum emploi boo xam ne wax nag. Hmm. mais ñaata emploi la def y' a quatre cent quatre vingt onze mille emplois si si si dans le secteur primaire. te ça reste élevage yi moo ngi si. Hmm. agriculture moo ngi si. bon mais mais mais tamit. ci emploi laa ñu choquer. waaw ndax la nekk. yéen a ngi def campagne boobu ba léegi nan la waa Ndara mën a am yëg-yëg jël seen carte jox Macky Sall ci côté emploi gis ñu fi dara. non mais tax lool na soko saint louis muy am parce que la preuve ba mak sall wuré ñew rek ñi nga xamni daan liggéey ci walu mbéd yi balay yoy non fi lañu grève grève met sen salaire 3 mois mu ñu sa ba jox secret problème ya fi nek fessu del wa mais ñun da ngeen taxaw campagne wax moy en 2007 2012 di moins sax la ngeen wax li nga xamni bu leen joxe lool ngeen doxale ah monsieur pas li ngeen fi wax lu gëna bëre du bokku ak li ngeen def na ngeen wax li ngeen li ngeen li nga xamni mom la sénégalais yakaron mo ngeen def ngeen bayka fa ngeen ñew indi li nga xamni seen yifu bok mais cheikh xam nga xam nga xam nga soo waxee loolu damay jàpp ne yaa ngi yaa ngi si erreur. Mhm. parce que tey au niveau de Saint-Louis rek ma wax la. au niveau de non non non non léegi au niveau de Saint-Louis laa lay wax. Mhm. li fi Mansour créé ci emploi. Mhm. li fi Mansour créé ci emploi def ko si la jeunesse saint-louisienne. je pense que Saint-Louis jeunesse bi rek. war nañu ànd ak moom voté ko. jox exemple. mais tamit ñaata ñaata jeune cadre la fi jël au niveau de Saint-Louis ñaata jeune. si parti am na ñoo xam dugal na les fonction publique am ñoo xam ñu ngi si ministère am.

combien de femmes mais tey soo jëlee tey yoo xam ne man waxuma du ma wax pour waxuntu dama wax loo xam dama ko fekkee parce que man ma représenté woon nijaay ji fi xam ni woon joxe woon nañ fa ay euh, des des financements yoo xam ni moom mun fa woon dem muy Samba Diallo mun fa woon dem man ma teewal ko fa kon yoo xam ne ay financement yoo xam ay fonds perdus di koy dimbali femme di ko dimbali la jeunesse. ñi bokk ci parti mais ñi bokk ci parti bi ñi bokkul si parti bi tamit ñi bokk ñi bokkul. ay financement yoo xam ay mais taw dama sànc ba y' a combien de femmes yoo xam ay groupement financé nañ ay presque sept cent mille mu si tuuti ba un million et quelque yoo xam dafa leen ko may pour ñu liggéey mais tey demal demal daaw demal njëlofeen demal feneen ak feneen da ban femme tey récemment boo xam ne ñun ñoo ko taxawal ay association l' association des femmes de table ma Faye bu mu ko taxawalee lan lan lan la wax may naa leen de millions pour le début association bi. femmes yëpp bu ñuy jaay table au niveau de Saint-Louis yëpp li ñu dajale jox leen 2 millions pour ñu financer la ñu liggéey

premier tour nag. voilà bu deuglo waxtan bi donc mom mom ku bokul APR mom do seddu donc non non non waxuma loolu de non non non non. <laughs> donc donc ñoo fi toog la ki nga xam modi di Aline Aline Aline Aline. waaw euh, Choker waaw Choker donc mom tamit mu nek responsa euh, responsable APR en même temps nek secrétaire ki nga xam modi di Samba Diallo fii ci diwan Ndar donc euh, je pense temps bi xoj nañu dañuy daal yi dóor deux questions rek. campé débat bi. waaw waaw waaw. donc gis nañu tamit arrivé Macky Sall arrivé Abdoulaye Wade bi. donc ban ban ban ban ban ban leçon nga si mën a tirer non mënuma si tirer benn leçon parce que koo xam ne paa xam ne dafa jeexal. Eh, def carrière am ba pare je pense que ñëw bëgg perturber kii bi <laughs> yow yow yow mais mu ñu tee nelaw ndax koo xam ne amul candidat koo xam ah, tax lan la fi def. amu fi benn raison d'être kon kon soo mënee def ñuy tiital kon damay jàpp ne ay waxu caaxaan la. non mais ku au contraire ñi nekkoon si parti ñoo dem ci vers APR mais yaa comme mais xoolal si Baraya fu mu nekkoon ñëw ñëw la APR xoolal kii. Euh, mais Braille non taxul damay laaj xool avocat bi avocat bi nekk fii au niveau de Koungheul ñu mu tudd. ba léegi non mais taxul ban moo ngi PDS. non loolu dafa ni damay non ban PDS. nekkul PDS mais Macky lay de toute façon APR pré kii PDS tas na tey soo jëlee ki Abou Talib moom mooy avocat bi nekk fii au niveau de Koni mais kan la ma dikkee ma dikkee kon ah. bàyyul bàyyi bàyyiwul kii bàyyiwul PDS kon soo ma nee man euh, Macky kii Abdoulaye Wade dafa ñëw pour tiite ñu man damay jàpp ni ay waxu caaxaan wax ma wax ma leneen waaye <laughs> day ñëw juste pour perturber kii bi mais c'est que ndeysaan ak guma politique moo nekk si moom non loolu la bëgg c'est que looloo koy <laughs> dundal moom peut-être ne xëy na peut-être di nekk di défilé euh. au niveau di kii di waxante population bi gars peut-être engouement boobu ak buzz bi xëy na peut-être la amee xaw ma ban buzz lay mais tamit en tout cas peut-être xëy na lool mais mun ñu perturber ñun en tout cas dama ni la depuis ba Macky Sall lancé campagne ba léegi. ñun ñoo ngi si ginnaaw ma Mansour Faye di liggéey amuñu si benn problème te APR ñëpp laa la wax. ñoo ngi déroulé seen campagne ah, euh, normalement. ah boo jëlee xaalis te incha allah du xool te xam nga fan lay gën a neexee. ci milliards yi milliards bi yëpp. non non xam nga fan lay non non non non wuy ma wuy ma wuy ma wuy ma jox gaa yi oto yi jox gaa yi millions yi ñu dem leen. sëñ boobam su loolu tàccoo opposition yi fu ñu jàll nga ngeen jaay leen doole. non non non non ban ban ban ban opposition la ñuy jaay doole wan leen rek. la fois passé rek euh, Issa Sall gis nga kawam bi. nan lay problème amee ñu jàpp waa kër Issa Sall bàyyi waa waa bàyyi waa. non mais c'est que loo xam ni peu cher. Ah, soo si duggee soo si duggee soo si duggee non xaaral wuy ma ma wuy ma Macky Sall amul benn délégation Benno Bokk Yaakaar amul benn délégation boo xam def na ko campagne di tooñ amul jëla Saint-Louis Mansour Faye day bëri campagne am. non non xaaral non xaaral waa déglu ma Sonko amu fi doole. non même fa amul doole keroog am na ko agressé wuy de Saint-Louis Sonko ngi fii nga ni mais Mansour Faye mu ngi déroulé campagne am normalement amul benn problème nijaay Mansour Faye di Samba Diallo man ak moom ñoo ngi ànd ak ñeneen ak ñeneen ñoo ngi ànd si le terrain mais amul benn amul benn problème boo xam rencontré nañu au niveau de la population saint-louisienne au contraire gars yi kat dañ ñëw rallier waat di wax ne ñoo ngi féddali waat suñ kóllëre si moom te incha balaa ñu koy xam le 24 février au soir du 24 ba gars yi dégg wiiw bi boobaa nga xam lépp dégg boobaa nga xam ni du ñu morom ñoom Sonko wala ma dikkee wala kii que ce xam nga gars yi dañuy liggéey da bàyyi wax gis nga xëy na peut-être Macky Sall su demee ba wàcc su demee ba wàcc loolu laa lay wax. Hmm. su demee waaye xëy na ñoom peut ñu ñëw jël seen wàll mais gëmaguma ko. Hmm. gëmaguma ko non non non donc donc donc bi je ñoo ngi ñoo ngi waaj tàggatoo. waaw bëggoon mu gën a yaatu. mais dañ lay bàyyi rek léegi nga joxe sa message. Wow, sommes xam remercier euh, euh, Saint-Louis TV. Je mm-hmm. di lancer un appel à tous les militants Nous a jour du 24 février le jour du vote. Mm-hmm. pour ñu nous voter carte massivement nous voter ji euh, mm-hmm. au premier tour. <laughs> <laughs> su ko defee au niveau de sali ñu mëna ñu mëna yoxu quoi. Mm. di nuyu en même temps tamit sama sama kilifa euh, di Samba Diallo euh, di nuyuwaale le maire Mansour Faye moom mi xamni tay ni tey euh, ñoo ngi nekk si ginnaawam. Mm-hmm. di ko liggéeyal pour jàppale le président Macky Sall si ci ginaaw président di ko jàppale pour ci kiiw Macky Sall bi quoi. Mm. pour pour falaat ko au premier tour des élections présidentielles. c'est que comportement bi daf ñu fi xat. Mm. voilà motax tax mënu développer mais loolu war na mëna tax ak liggéey bi ko nijaayam di liggéey fi di Samba Diallo

téye suñu ay carte far naan bu ñu demee génn massivement boo te ñu gagné élection te ñoom ñu téye carte yi ah créé ay bureau fictif créé lu nekk ci li ma dégg balaa ñu ma jël si <laughs> <laughs> bu ko defee ñu ngi leen <laughs> santaat bu baax a baax di rafetlu tamit seen ànd di gërëm euh, sama ñaari ndaanaan yi ma àndoon muy Madiaye Fall ak euh, Novisto te taadara la mu doon ana mën taada nag ay gars yi mën taada la àndal <laughs> donc bu ko defee bàyyi Cheikh waaw yow yow Cheikh ñoo ngi lay jëg la waaw ñoo ngi delloo ziar waaw bëgg noonu trop ci disponibilité bi ak nangu bi merci je pense que incha allah daana am yeneen jotaay yi nga xam ne daan gën a yaatal incha allah donc yéen ñi nga xam ne a ngi seetaan euh, ay représentant candidat yi nga xam ne waroon ak ñoo waxtaan ak ñoom incha allah donc asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatu yaa ngeen jëfati